kii sama sëriñ maa ngi lay ñaanal nga gudd fan ko wér demee ci yow ma wax la ko bëggoo ku ko wax waaye dama koy wax ndax dafa am taxawaay boo ñu taxawal ci sa jumaay maam Cheikh Seydil Hadji Malick ji ñëpp xam ne amatoo vie nekkatoo ci sa njaboot lekkatoo naanatoo depuis sëriñ bi joxe ndigal ci jumaa ji ba tey naalawatoo lekkatoo naanatoo loolu nag bu jumaa ji demee ba nu jël caabi ji teg ko ci loxol sa maam sa baay Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour képp kuy njabootu alaaji maa ko képp kuy julit moom nga ko defal lii may wax nag nit ñee ma yebal pour ma wax la ko bëggoo ko nag waaye maa koy wax kon yàlla nga gudd fan te wér nee na nañ ko soppi def ko ñaan ñu soppi ko def ko bi nee na lu ko waaye a gërëmati na nga ko soppi def ko ñaan waaye nag lii mënul ñàkk ndax boo ba léegi ma ngi koy wër ba jumaa ji commencé ba tey yàlla nga gudd fan jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu nag Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy ibn Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour ñëpp dañuy ànd rek ñaanal ko yàlla la yàlla lafal ko cat yàlla guddal fanam te mooy ko wér si Malick tabaarakallaahu dafa wax ni li mu defal maamam Cheikh Seydil Hadji Malick si dañ ko ñaanal yàlla yàlla bu mu ci gis boppam tabaarakallaahu nit la ku jàmbaare nit la ku baax nit la ku sonn ci jumaay maamam Cheikh Seydil Hadji Malick si ji ba bàyyam bu tedd ba Serigne Babacar Mouhamadunil Mansour joxe ndigal lekkatul naanatul lépp ngir bëgg a sagu Seydil Hadj Malick yaa nabi allah yaa habib allah yaa waral gàmmu gee xayru xalqillah yaa rasul allah waral burde bi maa ngi ni amuma amuma dara faalewuma ay yoneen يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله البرد بيبتي جوينا بلو تيسي فرنا ممون مانجي توك دي لخار يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله أي فاطمة وبوغي ما سنال رك دودال أو ما سخلو ما دال يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله خير خلق الله بري نوت نمتي بري بري jéem di ko fay gis na boobu ba tey yaa rasulallah yaa nabi allah حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله خير خلق الله ما نجي وطلو ما ngir teral ñi ma am fëgg naa fu ma xam yaa rasulallah نبي الله يا حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله waaye tey dama xëy am lépp di way li ma yëg dafa rëy yaa rasulallah يا نبي الله يا حبيب الله خير خلق الله يا رسول الله يا الله يا الله كرام يا دي بنت كرام يا الله جوخ دي